Serigne Abdourahmane Fall Serigne Abdourahmane Fall mi ngi feeñ jamono nag ci dëkk boobu nag di Daaru Xafoor ci atum 1934 ci dëkk boobu nag di Daaru Xafoor nag di dëkku waajuram muy doomu soxna saa Saasi Mbocc ak maam Saaliw faal moom Serigne Abdourahmane Fall nag bi mu feeñee jamono waajuram nag maam Saaliw Fall mi ngi ko fayee nag sëriñ Ndaam Abdourahmane loo ñu ko doon wooye nag Serigne Ndaam Saaliw Fall muy doomu soxna saa Saasi Mbocc soxna Saasi Mbocc itam nag bokkoon ci buur yi nag siin Fall itam na bokkoon ci jàmbaar yi toppoon nag ci ron ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nekkoon itam nag rakku Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ñu bokk soxna Seynabou Ndiaye ak Serigne Ahmadou Rokhaya Fall maam Saliou Fall mi meññi nag turandoo Serigne Ndaam Abdourahmane Lo wi di Serigne Abdourahmane Fall nag ñu gënoon koo xam nag ci Serigne Ndaam Saliou moo sanc itam nag dëkk bii nag di Daaru Xafoor dëkk boobu nag di Daaru Xafoor itam nag fala turandoo Serigne Ndaam Abdourahmane Lo wi nag feeña jamono mu duppee doomu jigéen wi nag di soxna Saasum Mbóoj moom mooy kan mi ngi bokkoon nag ci sëti nag buur siin yi nekkoon itam nag galwaar itam nag ci dëkk boobu nag di siin soxna si Mbóoj mii nag moo meññi nag doomu maam Saaliwu Faal bii nag mu faye sëriñ Ndaam Abdurahmaan Lo ba tey nag soxna Saasum Mbóoj nag moom mooy kan doomi buur Saalum la di Gédeel Mbóoj ba tey soxna Saasum Mbóoj doomi soxna Kumba Bale Njaay la ba tey nag ñu wax leen soxna saa si Mbóoj lu ko indi nag ci loxoy maam Saaliwu Faal ginnaaw ba mu nekkee nag doomu buur Saalum di Gédeel Mbóoj waajuróomu jigéen wii nag di soxna Kumba Bale Njaay la àndaloon nag ñëw njaareem fekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu mu jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba noppi nag moo ko waajuram Seexul Xaadim nag soxna Faat Jaxate muy waajuru sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag la woolooy itam nag ci njaareem ne ko nag jëlal soxna Saasu Mbóoj mii nag moo ko waajuram jigéen wii nga yoral ma leen nag ci kër gi ci loxoy soxna Faat Jaxate nag lañ nekk ba ni sëriñ tubaa Seexul Xaadim nag bind ab lettre Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriidiina di ko xamal ne xelwaaru siin bii nag laa bëgg nag nga yor ko ginnaaw bu mu ñëwee nag ci loxoy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina nag moog waajuram nag soxna Kumba Bale Njaay maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina itam nag dëkkoo ko moog Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina itam nag am nañu itam nag ak njabootam ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax soxna Xadi Fall bintu soxna Saasi Mbóoj bintu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina soxna Aminta Fall bintu soxna Saasi Mbóoj bintu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina soxna Rahmatullahi Fall bintu soxna Saasi Mbóoj Mbodj bintu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ak maneen soxna Xadijatu Fall bintu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp la soxna saa si Mbodj am ak maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina kenn itim nag ci doomi mi ngi ci ñu denc di soxna Aminta Fall ginnaaw ba fi Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina nag bàyyi ko nag ci maam Saaliwu Fall Fall nag ci daaru xafóora maam saaliwu Fall itam nag am na ci njaboota muy kam faye woon cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu xaadim rasoola di sëriñ moustapha Fall ibnu soxna saa si mbóoj ibnu maam saaliwu Fall ak kii mu fayee nag sëriñ ndaam abdourahman loo di sëriñ ndaam Fall saaliwu ibnu soxna saa si mbóoj ibnu maam saaliwu Fall bant yii nag la soxna saa si am ak maam saaliwu Fall mu wéy nag des nag ci loxoy maam saaliwu Fall nag ba ni fi maam saaliwu Fall génnee àdduna nag ci atum doomu cheikh ibrahima Fall lamp baabul muridiina ba di magu sëriñ sëriñ ndaam saaliwu bii di sëriñ mortaala faal moo ko jëlee nag ci dëkk boobu nag di daaru xafóor indi ko nag njaareem nag kër cheikh mook doomam nag sëriñ ndaam saaliw moom soxna saa si mbóocëng bi doomam nag sëriñ ndaam saaliw nag ma tee dal alxuraanul karim la ko sëriñ mortaala faal nag yóbbu nag ndaam daaru xalimul xabiir ci njabootuk sëriñ ndaam abdourahmaan loo ngir ñu jàngal nag turandoo sëriñ ndaam abdourahmaan loo wi nag alxuraanul karim booba itam nag waajuram nag maam saaliwu faal moo leen doon xamal ne turandoo sëriñ ndaam nag turandoom laataa sëriñ ndaam saaliwu nag mata dal alxuraanul karim sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag génn na àdduna nag ci atum 1943 waaye sëñ mortaala faal nag wéyal nag ndigalul waajuram nag maam saaliwu faal yóbbu ko itam nag ndaam daaru xalimul xabiir ginnaaw bu mu jógee ndaam daaru xalimul xabiir nag moom sëriñ ndaam saaliwu la ko sëriñ mortaala faal nag yóbbu na xuru mbàkke mu nekk fa ba ni sëriñ yaaram mbay génnee àdduna bi sëriñ yaaram mbay génnee àdduna ba sëriñ mortaala faal nag demoon nag doon ko nag ba tolloo xuru Mbàkke la laaj nag rakkam ji nag di sëriñ ndaam saaliwu ca booba itam nag la ko jël jébbal ko nag cheikh mamadul faadal mbàkke nag ngir mu tarbiya ko ginnaaw bu mu ñëwee nag ci loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke la ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag yóbbu Touba aliya ci daara ji nekkoon foofu ci daara jooju yi nag la tarbiyoo nag ci loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke nag ba jot ngërëm cheikh mamadul faadal mbàkke nag gërëm ko mu dellusiwaat nag ci loxoy magam sëriñ mortaala faal nag ci njaareem sëriñ mortaala faal itam nag moo ko sampal kër ci dëkk boobu nag di njaareem ci quartier boobu nag di kër cheikh sëñ Mortala Fall itam nag defoon ko nag ne boppam fépp foo xam ne nii sëñ Mortala Fall ma ngi fay dem itam nag yóbbaale ko ba bis bi sëriñ Mortala faal nag di génn àdduna ci accident boobu mu defoon moo sëriñ Ndaam faal mii nag ñoo bokkoon nag oto bi ginnaaw bu fi sëriñ Mortala Fall bàyyi ko la sëriñ Alioune faal Mbawoor mi bokk ak sëriñ Mortala Fall nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen jël nag sëriñ Ndaam Saaliw def koy tiim nag na ko sëriñ Mortala Fall defoon ba tax na itam nag lettre bi mu bindoon sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci bi ñuy jaayanteeg sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké sëriñ Alioune Fall Mbawar nag ma nga def itim nag ca lettre ba yow sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke sëriñ Ndaam Saaliw mii nag suñu rakk la te fépp fuñ jëm nag fa lay jëm moo tax itim nag ñu ànd ak moom nag jox la itim nag suñu bopp ci bi mu ñëwee nag ci loxoy sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke la am nag ak kóllëre gu yaatoo ak sëriñ Touba nag Cheikh Saalihu Mbacke bi mu jébbalee boppam nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci ndigalul magam nag sëriñ Alioune Fall Mbawor mu nekk nag ku jaxasoog sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke amoon na yéenay fob doomam sax jébbal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Lahad Mbacke waaye ginnaaw ba fi sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag jógee la fob na sëriñ ko nag sëriñ Sidi Mbacke ibnu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke mu nekk nag ku jaxasoog sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ba tax na sax laataa sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke sax di nekk xalifa général des Mourides kër sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke gi nekk foofu nag ci njaareem sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag joxoon na ko ndigal na ngir mu tabaxal ko fa nag ab bâtiment keroog bi ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag joxe mi ngi doon xamal nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke di ko wax ne daal sa taalibe ba nag sëriñ ndaam faal nag laa jox nag ndigal ngir mu defaral ma nag ab bâtiment nag ci njaareem digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ba tey relation bi nag mi ngi jógee ci soxna saa si mbóoj ak soxna faati jaxate mi waajuru sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ndax soxna saa si mbóoj nag bi mu ñëwee nag njaareem jébbalu nag ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul laataa Cheikhul Xaadim nag di ko jébbal nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag ngir mu dëkkoo ko soxna faati jaxate nag la ko boolee doon ko xamal ne daal soxna saa si mbóoj moomu nag ak waajuram jigéen woowu bëgg nag nga yor leen relation boobu nag mu amoon ak soxna faat jaxate nag ci njaareem bi ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke gisee loola itam nag ko njëkk a fàttali di ko xamal ne daal noonee waajur yi amante woon ak kóllëre nag ni laa bëgg amanteeg yow nag ak kóllëre fépp foo xam ne nii nag sëriñ Ndaam Faal Saliou nag nekkoon na fa sëriñ Saliou Mbacke nag daana ko fa fekk moo xam daaru xafoor nag moo xam njaareem lépp loo xam ne nii sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke itam nag daana ko deflu ñaare itam nag daana ci woo sëriñ Ndaam Saliou nag ba noppi fépp foo xam ne nii itam nag alalu sëriñ sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke la sëriñ Ndaam Saliou nag teg na fa tànkam ci mbooleem nag daara yi ba tax na itam nag njabootuk sëriñ Ndaam nag moo xam góor nag ak jigéen bari na ci ñoo xam ne nii itam nag sëriñ Saliou Mbacke nag la leen joxoon nag ngir mu yar leen ba ci doomam jii nga xam ne nii sëriñ Alioune Fall Mbawor nag la ko tuddee ñu gën koo xam nag ci sëriñ Bada Fall sëriñ Saliou Mbacke ibnu Xaadim Rasul nag moo ko tarbiya kim tudde woon nag sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru moom itam nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag Bachir Mbacke rawatina nag sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru tudde na doom sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru foboon na ñaari doomam itam nag jébbal sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru muy sëriñ Cheikh Fall ak kam faye woon nag waajuram wa di maam Saliou Fall ñaari jëmm yii nag sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru nag la leen joxoon mu nekk nag ku jaxasoo nag ay magam moo xam ñi mu séqal Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mortala Fall mi nga xam nii nag moo ko defal lépp nag moo xam ci jàngal tarbiyawu ba ci sampal kër tudde woon na sëriñ Mortala Fall moomu doom rakku sëriñ Mortala Fall ba nag di sëriñ Alioune Fall Mbawoor sëriñ Daam Saaliw nag mag la ko defoon ginnaaw bu mu noppee gis sëriñ Mortala Fall sëriñ Alioune Fall la na sëriñ Alioune Fall Mbawoor doom muy sëriñ Bada Fall ñaari yooyu nag relation biñ am ak sëriñ Daam Saaliw mooy soxna saa si mbooñ nag mu meññ sëriñ Daam Saaliw maam Saaliw Fall nag moo ko dénkoon nag sëriñ Mortala Fall ba tax na nag bi fi maam Saaliw Fall ko sëriñ Mortala Fall nag daa jëloon nag soxna saa si mbooc jëlaale itam ji am nag di sëriñ doomu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ku jaxasoo woon ak sëriñ Ndaam Saaliw la ba tax na sëriñ Ndaam Saaliw itam nag tudde na ko doom ku jaxasoo woon ak sërif Asan Fall la ibnu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ku jaxasoo woon ak sëriñ Abdoulaye Fall Ndar la ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ku jaxasoo woon ak sëriñ la mu nekk nag ku jaxasoo lenn itam nag ci soxna yi nga xam ne nii nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag yoroon na leen muy ku ñuy wax soxna Faati Ousmane Fall moom meññ na soxna Ummi Fall nag nag bu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina soxna Faati Ousmane Fall mii mook soxna saa Mbooj nag dañoo bokkoon nekk nag ci ëttum maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ginnaaw buñ jógee nag ci ëttum maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ñu bokkaat nekk nag ci ëttum nag maam Saaliwu Fall tax na nag benn bant boobu nga xam ne nii soxna Faati Ousmane Fall nag am na ko nag ak Cheikh Ibrahima muy soxna Ummi Fall nekkoon nag jigéenub nag Sëriñ Ndaam Fall Sëriñ Ndaam Fall tudde na soxna Ummi Fall doom kóllëre googu itam nag ñoom ñaar nag sàmmoon nañ ko nga xam ne nii moo meññ sëriñ ndaam faal itim Cheikh Ibrahima Fall nag tudde na ko doom ci gëstu yi amal itim seetlul nañ ne itim nag benn soxna rek ci mbooleem soxna yi Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul muridina yoroon mennum soxna saa su mbooj mi dong nag la ci tudde doom kim ko tudde nag soxna njaay njere mi Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul muridina dëkkoo woon nag moo ko meññ muy soxna assu jee faal bi ko Cheikh Ibrahima Fall tuddee soxna saa su mbooj dafa am bis nag soxna njaay njere mii nag demoon ziyaara ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim muy laaj nag xale bii mu yor nag nu mu tudd ñu di ko xamal daal moom la Cheikh Ibrahima Fall tudde soxna saa si mbóoj nag mi ngi ko joxoon mu leen di xamal ne nag nañ koy woowee Astou Dié Fall waaye nag soxna Astou Dié Fall soxna saa si mbóoj nag la ko si Ibrahima Fall fayee mu nekkoon itam nag ko am relation nag ak njabootu nag soxna Faati Tambidou rawatina nag doomu soxna Faati Tambidou ji muy soxna Jëgg Fall ñeenti soxna yii nag Cheikh Ibrahima Fall da leen a dëkkoo woon ginnaaw bu fi Cheikh Ibrahima Fall nag jógee dañ leen a joxaat nag maam Saliou Fall ñu bokkoon nekk nag ñaari ëtt yooyu muy soxna Faati Ousmane Fall mi meññi Masasi Mbóoj bi meññi sëriñ Ndaam Fall bu maam Saaliw Fall soxna Faati Tambidu mi meññi soxna Jëgg Fall bu maam Saaliw Fall ak soxna Njaay Njere mi meññ nag turandoo soxna saa si Mbóoj mi ñu gënoon ko xam nag ci soxna Assu Jee Fall ñeenti jëm yi nag Cheikh Ibrahima Fall moo leen dëkkoo woon ginnaaw bu fi Cheikh Ibrahima Fall jógee nag lañ leen jox nag maam Saaliw Fall seenu njaboot yi nag benn lañ woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina gi waajuram woow nag di Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina tudde na ko nag ñaari yoon doom jim njëkk a gis nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag la ko tuddee doom ji mujjee gisitim Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag la ko tuddee ku bëggoon nag waajuroom nag Cheikh Ibrahima faal la noonu mu jaxasoo woon nag doomi baayam yi mu séqal Cheikh Ibrahima Fall ni la jaxasoo woon nag nag doomi baayam yi mu séqal nag maam Saliou Fall li ko dale nag ci mbooleem njabootug maam Saliou faal gépp moo xam góor nag ak jigéen noonu la amante woon nag ak kóllëre ak ñoom rawatina nag sëñ du Fall Ndakaaru nekkoon na jëwriñam nag ci bi fi sëriñ Abdou Fall Ndakaaru nag toogee maam Saliou Fall lépp loo xam ne nii nag ci xilaaf ak maam Saliou Fall lañ ko def te sëriñ Abdou Fall ndakaaru nag nekk na xalifa bi sëriñ Ndaam Saliou nag moo nekkoon jëwriñam moo xam nag ndigal yi xel koom yi ba ci liggéey yi ñu daa liggéeyloo nag kër gi liggéey yi ñu def nag ci kër maam Saliou Fall gi nekk Touba moom moo nekkoon nag jëwriñu liggéey bi ginnaaw bu mu toogee nag juróomeelu xalifa maam Saliou Fall nag ci atum 2013 wuutu nag magam nag sëriñ Abdou Fall ndakaaru lu takkoo takku nag def na koy téem nag ci ak xilaafaam ñu mën cee ràññee nag bayti di fi maam Saliou Fall nag génne génnee àdduna moo ko defarloo nag ab taalibeem bu ñuy wax nag Moodu Juuf ginnaaw bu Moodu Juuf nag ñëwee amoon yéene nag defaral nag sëriñ Ndaam nag la ko sëriñ Ndaam Faal nag doon xamal ne fee waajur woon nag génnee àdduna nag di bayti laa bëggoon nag ku ma ko defaral waaye nag xaaral ñu dem nag ci sëriñ Abdou Faal Ndakaaru nag mi toog toogaayu maam Saaliwu Faal bi mu ñëwee nag ba xamal lool nag sëriñ du Faal Ndakaaru la ko sëriñ du Faal Ndakaaru nag jox ndigal ngir mu tabax nag bayti nag di sëriñ maam Saaliwu Faal génnee àdduna teen bi nga xam ne nii nag maam Saaliwu Faal nag moo ko bënnoon itam nag ci daaru daaru xafoor sëriñ ndaam faal saaliw itim nag moo ko miiree résidence maam saaliw faal bi nekk daaru xafoor itim tabaxoon na fa ab étage nag tudde ko résidence nag maam saaliw faal na bâtiment itim nag bu mu tabax itim nag ci bàyyi woon xel maam saaliw faal nag daana wax ne benn saa su mbooj taal bu yàlla taal la sànni ci matt nag moo gën nag fay ko daal di wax ne nag man sama matt a ngi nii loolu itam nag taxoon na soxna jee faal bintu maam saaliw faal te sëriñ Ousmane Ndiaye moom sëriñ daaru Assane Ndiaye dëkkoo woon ko nag ci daaru njaay daana wax ne sëriñ ndaam saaliw mii de ku jara moytu la ndax itam nag ku suñu waajur wa fonkoon la nag di maam saaliw faal soxna jee faal nag am na bis nag muy waxtaan ak njabootuk sëriñ ndaam faal gi di leen xamal ne sëriñ saaliw faal dolli na nag ñetti at nag ci dundam nag ginnaaw bu mu ko ñaanee suñu boroom ndax nee na nag dafa ñeewoontoon na génn àdduna nag ba fi nag doomam ji nag di sëriñ ndaam saaliwu ba tey itam nag soxna jee faal itam nag doon na wax njabootu sëriñ ndaam saaliw gi di leen xamal ne da baa du ngeen merloo nag waajur wi Saliou Fall nag musta bëgg na ku ko merloo daana wax ne de ndaam Saliou mii mu bég de moo gën nag mu mer loolu itam nag taxoon na nag mbooleem nag ñi mu séqal maam Saliou Fall itam nag xamoon nañ ko itam nag sàmmoon ko nag ci seen rakk ji mag ñi jege woon itam nag maam Saliou Fall itam xamoon nañ ko nag ci doomu maam Saliou Fall bii ba tax itam nag nitug suñu boroom la woon nag ku ko jege ci noppeeg liggéey nag ci la sax nag ba nim génnee àdduna ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag ci 1934 nag di daaru xafóor mu nekkit nag juróomeelu xalifa maam Saliou Fall moom doomu soxna Massaassi Mbóoj bi turandoo sëriñ ndaam Abdourahmane Lo wa ñu gënoon koo xam nag ci sëriñ ndaam saaliwu mi ngi génn àdduna bisub àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi nag du weeru maamu koor ci atum 1440 nag ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru nag maamu koor ci atum 1440 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 6 mars ci atum 2019 mercredi 6 mars 2019 ci dëkk boobu nag mu feeñe jamono di daaru xafoor nag di dëkku waajuram ñu jébbal ko boroomam ca armeer yi bàqiya sëriñ fàllu mbàkke ibnu sëriñ abdul xaadir mbàkke moo ko jullee ci ndigalul nag sëriñ muntaxa mbàkke xalifa général des mourides ci teewaayu nag mbooleem nag baay faal yi ak yoonu murid wi ay xalifaam nag nii la tëddee kam faye woon nag kam tarbiyewu nag di cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul di sëriñ fàllu faal nag moo toog nag ab toogaayam ki ko wuutu nag ci kër waajuram di sët bi njëkk a wuutu nag maamam di sëriñ asan abdourahmaan loo ba di sëriñ ndaam saaliwu yàlla nañu ko suñ boroom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñuy tim nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi tim na yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey waajuram woowu mu wuutu woon nag di sëriñ saaliwu faal amiin sëriñ faal amiin sëriñ faal